asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi internet yi suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag dañoo ñëw ci xew-xewu jàmm xewu jàmm mooy ngénte liir bu juddu la ñu koy tudd tey di bésam bu delsi muy kan moo am liir boobu guy gi la ko yàlla may te xam nga ñun lamb 100 pour cent la ñuy def kon nag lépp lu mu laaj rek dañ koy def ngénte sax ci ci la bokk ci Leewtoo TV nasso ngi ne toog balaa ñuy dem ci tant beeg yooyu yàgg ma ñëw nuyu ko moom parce que moom defe naa ko xam guy gi xam nga ko. ziar naa leen sama gaay nas maa ngi lay ziar. <laughs> waaw mais Babacar. maa yaa ngi am jàmm. <laughs> maa ngi am jàmm ça va nag it tey. waaw xam nga ku wax da ngay wax guy gi tey yàlla may ko gan di bébé mu koy ngénte ba ma doon tënkal guy gi ci ci lu gàtt rek sa diggante moom ndax diggante bi Sénégal bi xam nañ ko mais loo mën a dolli ci moom tuuti. <laughs> non sama xarit la sama doomu ndey la quoi. waaw loolu rek mën a wax. loolu rek xarit la sama doomu ndey la nit ku baax la quoi. Babacar xam man du ma wax man Babacar man nag ci écran yooyu nag. pour cent fi am raxuñu koog dara. waaw mais yow ci lamb tax ñu xam la. ci lamb lañ la xam. Babacar yow xoolal. fii moo tax ñu xam la ñu. ni ngay ruubee mbëri bu ma ko ruubee man du ma wax. ruubee sax damaa bëgg nit ñi xam nas di <laughs> gën xale bi nu mu tudd sax te am nday ak quoi bàyyi lu ñaanoo doomu ban tur lañ ko kersa laa waaye baaw ko nitu kersa Mbaye Diallo moom Pikine la dëkk waaye nag lamb la ñu wax Mbaye maa ngi lay ziar yàlla na yàlla nangu ziar président des entraîneurs Mbaye Diallo waaw Babacar ñu ngi lay ziar nga jóge Pikine ñëw tey géej Guédiawaye Cité Asecna ci tudd guy gi kon loolu maanaam lu muy jàngale waaw mooy mooy wane ne sportif yi nañ nangoo doon euh, booy pratiquer sport doo doon sportif parce que tey suñuy rakk suñuy rakk lañ suñuy jarbaat lañ suñuy doom lañ tey ku ci xew la yëgal ñu ko ñu teew mais nag nañu bàyyi di dem safaan bàyyi bànneex parce que lépp ci la lépp xaj parce que tey ñoom ñëpp suñuy doom lañ bu bés bu combat amee Géejawaay ak Pikine dañuy reyante mais bu jeexee rek jeex na waaw et puis ñu ngi lancé appel tamit di ko wax écrit ak école de lutte yëpp pratiquer sport taxul nga doon sportif nit buy def sport day nangoo doon sportif da nga nangoo doon sportif foog ñu calculer ñaari mooy pratique sport taxul nga doon sportif mën nga doon sportif sax te doo pratiquer sport booy pratiquer sport nag da ngay nangoo doon sportif parce que tey diggante Pikine ak Géejawaay kenn mënu koo xar ñaar nas mii tey ñu fekk si nga gis ma ma toog ak moom nas Pikine lay liggéey guy gi suñu adversaire la tey bu combat taxawoon dañuy entraîner waa Pikine pour ñu gagner la komba tey bu combat taxawee waa Guédiawaye dañuy jàppale guy gi pour mu daan te tey boo xoolee ay entraîneur am ci sama association la ñu bokk ñu séq jàmm muy Ngaylum muy Maawo Cissé tey biñ ma séenee sax dañoo bëgg ñu am ci compréhension kontaan ci ñoom lool di ñaanal nag xale bi màgg ba am njariñ ba yàlla defaat ñu dajewaat fi di ko maye ci barke Seydina Mohamed jërëjëf kenn du kara mais jox ma lu ne di bokk ak balaa kii moom moo guy gi defe naa ne guddeeg sam samedi dimanche la kara tey de sa doomu ndey ngénte waaw ah, sama doomu ndey mooy ngénte wax dëgg yàlla guy gi moom g moonu boole maak moom waaw ah, loolu yàgg na mu nekk sama grand bu baax wax dëgg yàlla nit ku baax nit ku bëgg doomu aadama man këram daaw ma fa jóg léegi la xanaa ni mu xaw a xëcc tuuti rek waaw giiteeg yooyu rek mais wax dëgg yàlla guy gi moom nit ku baax la këram la ñuy ñëw dara du manqué lépp lañu fay def yàlla xam na. mais Kara koo ko tuddal ci géej waaye rawatina champion yi mu ne Kara ku baax la ku baax lan mooy secret Kara. waaw mais du dara gars yi dañoo baax rek amul solo ñëpp ñun ñëpp benn lañ waaw àdduna amul solo ñun ñëpp benn lañ waaw wallaahi. waat na ni guy gi ñu mu wula lekk feneen. fen rek lay lekk kon nag foofa war nañ koo sellal ba dara du ko ci dal wala lu ko dal ñu ne ah jàmm rek sëñ as daal Adja Woré nee na kontaan na ci yow. nee na nii nga jàppe ñaari doomam yàlla na la ko yàlla fay ci barke yonent bi ba suñu borom nee na bu gàmmu amatee cene ba bu ko fekkee ci réew mii bu dee neex na yàlla ak wér dina la gane si yàlla na ko fi fekk nag ndaxte ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ca maxtaan du méjoo ak ca la maamam soqi ko ni ko daal bi ko géwël bi di wax yaramam daa daw maa ngi gërëm sa jabar itam. na mi ngi gërëm guy gi. Adja Waré nee na mi ngi gërëm sa jabar. ndax sa sa soxna. lu mu am problème. lu mu am ci jafe-jafe. wala lu mu bëgg. wala lu mu soxla. wala lu mu soxla. këram la jëm. desalul ndey caam dara. tabaskee mu ñëw bu tabaskee mu ñëw bu koritee mu ñëw tamxarit mu ñëw isaaxa yàqoo ci dara yow mii nag yaa baax nee na li ngeen di toog bariwul de tey it seen i gisee bariwul waaye jébbal nga ko sa njaboot te wóor na yàlla boo doon gens ak i këf doo dugg këram ah, nee na du yar ba pare ñu ko yàqal nee na ndax ñi mu yor ndey lan am nu baay yaag sa mag gi yal na leen yàlla. yaag sa mag gi na leen yàlla dooleel. yal na nga gudd fan. yal na nga fan guy gi. yal na nga li la sa na la dal. li la sa waajur wi ñaanal yal na la dal. maa ngi gërëm ñi nga bokkal nee na mi ngi gërëm ñi nga bokkal làmb yëpp. ñëpp samay doom lañu ndax ñëppi doomam lañu. ñëpp samay doom lañu. ñëppi doomam lañu. ku bëree bu ndam gënee ci yow yal na la ko yàlla jox. ku bëree bu ndam gënee ci yow yal la ko yàlla jox waa gis non non c'est normal at li mooy àdduna àdduna amul solo xoolal yàlla na jàmm yàgg yàlla na yàlla dafa sutura te mosoon ñu cat at làmmañ at saytaane àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokk. ana wulli ah wulli laaj naa la ko. nee na nee paajaat nga. waaw su am problème ba bis ba yàlla baax na waaw yàlla baax na maam Diané yi nii kay. yàlla baax na yàlla maam Diané. nga baal doom yi ngay naan. <laughs> moo jom kan. doom yi ñaari juróom lay naan na ko baax xale bu ndaw la te dem doole ji. naa ni doom yow itam. am visa amul képp la doom am visa amul paas. lu 10 ans la. wuy ma yàlla yàlla dégg ma dama lay wax taxal ma la dama lay xamal. dama lay wax dama lay ko am paas soo gisee da nga koy xam bàyyi doom yi ngay naan. yoone lépp jàmm naka war am nga jàmm waaye sant rek teew nga si ngénte guy gi tey de waaw waaw waaw guy gi moom suñu mag la bu xewlee dañuy teew ndax daa jël téléphone waaw lépp lu ñu jàppale dañ koy bàyyi mën a ñëw si tuddam kon daal 100 pour cent Guédiawaye bi mooy dund ba tey rek. dund mooy dund ba léegi rek. <laughs> mais lii rek lay xeer. lii comédien la <laughs> comédien bu mag la. ba tey ñu ngi Guédiawaye ah Pape Mbaye ah réparé waaw Pape Thiam moom xam nañ ko réparé rakku mar la maa ngi lay bëggee Pape Mbaye waaw maa ngi lay ziar di la bëggee bu baax borom Gambia waa dafa leer ah, mais temps yaay borom Gambia yaa ngi liiru jaan yaa ngi liiru jaan temps yi lay borom Gambia <laughs> yéen ñaar yaakaar naa lépp si lamb yéen ko partagé loo mën a témoñ jox si moom comme ay témoignage waaw guy sunu gannaaw la ñu nekk benn école xam nga moom moo nekk téléphone instant yi am na sama nekkoon am naa jigéen bu wax saaka joo nekk téléphone mu nekk téléphone moom ñu koy nangul bu baax a baax xam nga moo xewle mais ñun boo xewlee mu nga luy ay siège mu ngi luy ay baas mais nit ñi kenn mënu leen luyee waaw nit ñi kenn mënu leen luyee moo tax ay nitam tewal nañ ko ñun tamit teewal nañ ko wax nañ ko ànd ak suñu grand frère lépp luñ jàppoo dañ koy bàyyi ñëw teewal ko waaw ñoo ñu fekk si ay am di ay nitam ay mbokam ñëpp fekk fi xam nga di ñaanal jabaram ji jaamu xam nga di ñaanal doom ji jaamu ba muy sëy tey ñu ñëwaat di ko teewee fii waaw loolu lañ koy ñaan di ñaanal bu jàmm baax jërëjëf. réparé ngi rakku marale la mbër maa ngi lay bëgg. waaw ginnaaw baatu 11h ba amee seetaan rajo bisimilah maanaam rajo sant yàlla julli si rek sant suñu ñaari waajur maa lay fay bu baax a baax. say say mag sax laay wax ndax yow xale nga ci seen biir lii loo ciy jàng yow parce que guy mooy ngénte te yéen ñëpp ngeen teew ci yow en tant que xale. waaw dëgg la sunu grand sunu kilifa mooy ngénte kon dafa ñàkk ki ñaan ndax ñun ñëpp la woo téléphone kon di ko ñaanal xale bi yàlla na ko yàlla may gudd fan lu wér gu yaram xam nga may ko ndey ak bàyyi waaw guy gi moom borom baax am koy ñaanal yàlla rek waaw mu koy ñaanal lu mu mën na yàlla mën lu ko raw dén si kàttan yàlla ok jërëjëf Pape Thiam Pape Thiam bëgg naa Babacar maa lay fay baa yaa ngi am jàmm waaw sant bu wér a wér kay naka forme bi waaw ñu ngi meññee nànk nànk rek tey guy gi ngeen tey ngeen teew fi yéen teewaay bi loo ma si man a wax. waaw fii bu ñu fi teewee dañ fay war a teew ndax suñu mag suñu xarit guubi moo xewle xam nga woo ñu téléphone lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi teewal ko ndax bu ñu xewloo bu ñu ko wooyee daf ñuy teewal xam nga dañ koy ñaanal rek. yàlla def liir bi dund ba am day ak baay ba lépp lu mu bëgg si liir bi rek suñu borom defal ko ko daal kontaan nañ bu baax a baax waay tey guy gi doon ngénte nga ànd ak Abdoulaye Ndiaye ak Lirou jaan sa doomu ndey ñëw ci ngénte li jéy luy relation ak waa Géejawaay laa koy njëkk laaj ba tax fu mu xewee mu fu mu xewee mu teew fa. <laughs> waaw Babacar ñu ngi lay sant bu baax euh, di nuyuwaat waa Leewtoo tuuti euh, di nuyu waa Sénégal gépp di wax Sénégal comme ni ko gars yi di waxee rek yàlla na fi jàmm yàgg jàmm rek moo neex parce que euh, lu mel nii bu amee tey muy suñu xarit muy kenn ci ñun muy guy gi mu xewle. vraiment def dérangement ak déplacement ñëw ba suñu kër soo bureau la ma fekk wax si ma ko te kon ne xam na ne guy gi dafa seq ak sama jarbaat ay xarit lañ ñoom ñaar sa sama jarbaat di kenn ci man sa si man rek di sama lépp euh, kon yaakaar naa guy gi sama jarbaat la parce que kuy ànd ak sa jarbaat sa jarbaat la kon boo bu xewlee te yëg ma lool nag def dérangement ñëw wax si ma ko dinaa ñëw teewal ko ci bésam euh, bi mu ko waxee Lirou Diane dama ko ne même bul ma ko waxut man sax kenn du ma fa jiitu. maa ngi koy sant bu baax di ko wax ne bés bi yàlla na ci ay ndab yu bëree bëree bëri toppaat euh, parce que lu rafet la daal kontaan nañ bu baax daal. ànd ak Abdoulaat sama doomu ndey ak ak euh, alaaji ah. ak. Euh, Lirou koy xam ne sama genn wàll la. <laughs> di nuyu suma ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te wér di nuyu kilifa diine yëpp di nuyu sama xarit bi sama xarit maam Cheikh Matidiane. di nuyu suma xarit Cheikh Abdou Karim Mbacke Ibrahima karamallah di nuyu waa Thiénaba gi yëpp bàyyiwuma kenn su ma bañ wax nag dinaa bañ a wax parce que tey euh, li may foog na trop parce que def naa ni Thiénaba tey moo fi ñëw tey li may sama xol daal foor na di sant bu baax nag. bi ma yàlla dimbalee ba ma am baay bu mel ni comme suma baay bi ak yaay bu mel ne comme suma yaay bi parce li tax ma koy wax man xam naa ko ñu nekk man tamit Thiénaba xam nañ ko dafa am benn vidéo may seetaan benn bis sama yaay sama ci gërëm sama yaay benn vidéo suma benn rakk bu doon naa bëreetul léegi ci jamono ak yeneen ay suma papa suma xarit la damay gàttal rek parce que maa ngi jéggul tey temps bi nga xam ne moom ngi leen fi leen leen fi téye parce que tey man tey affaire bi ma diggee kaw li ma diggal li ma ñëwal man defe naa man maay sasaat sama te ñu fi toog nii amul kenn koo xam ni ba ma dalee bëree kase ba tey mos ngaa toog wax ma soxla wala ma romb la ma jox la 1000 francs te bu combat amee yaay jël sa def ko ci man kon tey li ànd ak man mooy dërëtu canaba ak gëm-gëm bi xam ne ñoo bokk canaba te loolu firnde ma kon di sant sama papa bu baax na bu baax sama bis bi dañuy sonn trop demal na ma ci lu nekk daa baax di wax rek ndax fekk na ma fu nekk awoon naa benn yoon boo xam ne ñi ma xam man xam nañ ma ni meloon bi may nekk xale mais mu jaral ko ma dee wala ma jub ba tey yàlla am kon tey du ma ko fàtte même bu dee tey tey tey tey na lu ñuy du na fu mu jaar nag kenn laa ci doomam xaritam laa. sëñ as sax xam na sama diggante moom su ñëpp waxee mu bañ a bàyyi man suma ma waxee day bàyyi su papa man rek maa ko mën a reetaanloo wala man rek maa ko mën a parce que man maa xam point faible fi nga xam ne man fa laay amee man li ma bëgg ma jaar ko foofu suma xarit la di ko sant bu baax di ko gërëm comme ni ma sant di ko gërëm bu baax di gërëm suma sëriñ nag sëñ as suma xarit la sëñ ba ma dalee fàttaliku ma nekk sama sëriñ ba tey xaw ma sax nu ñuy jeex au contraire moom moom ma yor yor sama pap yor sama famille ak ay détails parce que tamit bàyyi suñu xaar doo wax naan benn kasetam maa ngi koy déglu mu ne lu baax bu fekkee loxo mënu koo fay bu la mel noonu dama koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di nuyu maam Allé di nuyu sëñ Baye Diop sëñ Baye Diop bu ma ko nuyoo sama bopp la njëkk a li muy def ma waxtaan ak man ka mbubb sëriñ sax da koy jël teg fële. muy loo xam ne lu foor la ci man sëñ góor a keroog bi ñuy ma nekk ci ginnaaw papaam lu muy xat-xat mi ngi may mbalat li muy xat-xat-xat mi ngi may mbalat muy loo xam ne cër boo xam ne canam dañ ma ko jox mu dis lool ci man te defulu ma leen dara te man duma fa dara sëñ Mame Marie nii ci kaw dama nekk daanu contre Boy Niang mu toog ànd ak àll ñëw dugg sama kër am lu ma defal taal otoom dem yoonam Mame Marie mu bàyyi boobu kenn ku mun naa wax ci yow benn benn mais day xat si bàyyi ji bi mii maa ngi ko tuddee borom tarmus bi si àll ba yabal si combat bu ñëw àll ma am fu may ngemb mënuma force di yeewu ma tëdd mënuma di nga yeewu di nga yeewu si am fu may ngemb mënuma eh, kii ñun ñoo ko yóbbu yow su yoon nekku ci ba maa ngi ñu bëgg cee jàppan àll ma am ndam woon na ginnaaw su ma limee daal damay juum mais dama ko bëggoon benn bennal mais sama xol moo sedd. son papa ab Ngingue ñu ngi koy nuyu bu baax bu baax man kenn ku ñu xam ne maa fiir ci affaire politique ci nguuram laa mujjee lekk Sylvain son xaw moom mii waaw sama combat daf may jàppale daf may nemmeeku comme ni ma suma war a daal jàppale moom comme canaba moo féete ci combat si si nguuram laa mujjee lekk loolu noonu ñu ñu joxe te man sax daa ma ko la dama koy jox mais dama koy joxaat suma gars yi nekk foofu. kon bu nit ñi toogee dina moom li may jàppale bu ñëwee soo bis tan kon fàttalikul kon ànd bi ñu àndoon su ma gannaaw nag Bara Gaye teew fii daf may neex bu ëllëgee bu ma nee maa ngi nuyu Bara Gaye ñu xam ne walla yaanu ma mag la suma dereet la mag moom dañoo xuloo baat ma moo mu ñëw fii ci ngénte bi ma wax naa suma mag la suma dereet la mais buñ gisoon tey ma seeti Bara yi dañuy def ne damaa wàll yaan te man saa ñàkk ñàkkam gi bëgguma ko mais bëggoon naa mu ñàkk ñu xam kuy guy gi góor la wala lan la noonu laay dundee parce que dama fekk fu kenn nekkul mu def ma ba ma nekk nit guy gi am na ay jamono kenn mënu ko utiliser il foofu fou lañ koy wax Woré Sarr dugal ma ci kër ba nit ma utiliser ma am passeport dem dëkk partout de tout le monde fa ma neex dem ba nit ma man maa utiliser kon tey du neex neex neex neex rek mu ñàkk nguur gi tey nit jóge fee di ma jox ay weccat wala nga may bëgg a ma jël wala sa teg suuf kon boobaa dinañ xool waa Thiénaba ban genre bi man du ma dundee noonu muy nit koo xam ne tamit def na ci man loo xam ne sama jabar bi mu amee doom nas xam ne awma combat dana ma jour temps dinaa la jox 2 millions nas mi ngi may dégg dinaa la jox 2 millions ma aju ko ma ne ñii ku ñu rey lañ bëgg dañ lay toog ba nga sës te man du ko def wó wóotuma te bis boobu ñëwagul ñu teg ci deux jours ma dem euh, ma dem fekk fekk am na pamayel mu woo ma ne ma noonu woowu ma sax dama dem sita ëppal fële sita bi bi ñu suba tam xarit mu nuyu ko ñu ne ma kii mooy diw man xaw ma pamayel bi fekk pamayel dañoo mayoon ay billets ma ne ko boobu tey gisantuwuñu mais ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm sama waaye sax ñëwul na expliqué ñu nuyontee mu ma dinaa jox na ko xat na ko tam xarit ma ah loolu da yéeme sëñ jaajëf waay jaajëfal ko may dem mu ne ma na kii jox sama numéro bi ma ñëwee ñu déggante mu ma dinaa ñëw kër gi seet la ñu toog lekk gerte caaf nangam na expliqué ci gàttal quoi man ne ko kon mun ngaa bàyyi ba suma tudd nga ñëw ndax damay tudd dimanche mu ne ma man xaw ma da ngay tudd dimanche mais kon na ko tam xarit bi ngénte laa koy def mais ba ma wooyee woo ma wala saal dama woo taawam bu jigéen nas ki caama euh, expliqué ko woo nas expliqué ko ñu rafetlu ko parce man du ma def lu mu yëgul du ma def tamit lu nas yëgul kon defe naa ni nas pare woon na pour moom ngéntal guy gi guy gi sax pare woon pour